Sall wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yalla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Kalidou Koulibaly ak Karim Moustapha Benzema le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Chelsea à l'assaut d'une Real toujours incisif Chelsea mi ngi jàkkaarloo ak Real de Madrid boo xam ne toujours day gëna a soxor waaye match boobee nag ñoo ngi cay xaar duel bi war a dox ci diggante Karim Moustapha Benzema ak Kalidou libali bii nag mooy ñetti yoon ñuy jàkkaarloo ca Santiago bi kon tey ñoom ñaar faw ñu ne rénkum jàkkaarloo waat waaye match boobee nag Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid mi ngi wax nee na jàpp naa ni dinañu dundaat guddi gu neex guddik luxuskat yi dikkati na soxal Ligue des champions te Real de Madrid nag ku ko xam-xam ne miin na lool Ligue des champions. journal bi tamit samp na laaj ci doomu Sénégal bii di Edouard Mendy est-ce que Lampard mi koy tàggat tey jii dina ko départ le titulaire ca Santiago Bernabéu am du ko départ le titulaire nañu ko ñaanal nag mu départ titulaire ndax sénégalais yi namm nañu ko te moom it namm na ngoon yu neex yi muy Edouard Mendy. ci tàggat Chelsea mi ngi wax ca match boobee nee na match bi nag dina mitti lool te challenge la waaye waaye défi ci man maanaam sas wu rëy la ndax yor Chelsea bees jàkkaarloo ak Real de Madrid loolee sas wu rëy la li ñu bëgg nag moo di jëmbat fu la am ndam ca match boobee Lampard moo yëkkati kàddu yooyu waaye waa Manchester City ànd ak Haaland tamit ñoo ngi ci journal bi démb ba yeenu de minute bu ñancoo Sadio Mané la ñu dalal dóor ko ñetti bal ci dara waaye doomu Norvège bi kenn du moom ca match boobee doxal na dugal na waa Manchester City nag def nañu jéego bu ama am solo ngir dem ca demi-finale ya doomu Sénégal bii di Pathé Ciss moom jamono ji neexlee tulte Rayo Vallecano ndax daan na départ titulaire waaye jamono ji nag place titulaire am ñàkk na ko kon nañu ko ñaanal balaa yàgg mu jotaat ca di doxal ca Rayo Vallecano ndax footballu Sénégal yaakaar na ko lool kii moom mi ngi doxal bi mu soppee club ak tey jii mi ngi doxal muy Abdoulaye Seck ma nga ca Israël club bu ñuy wax bi Maccabi Haifa waaye doomu Sénégal bi ma ngay doxal foofee ma nga woon nag ca Belgique naam Belgique footballam moo gën a kawe bu Israël waaye doomu Sénégal bi doxalul woon ca Belgique waaye ba mu demee ca Israël ak tey jii mi ngi wane boppam kon nañu ko ñaanal jaloore joojee mu nekk mu wëyal ca muy Abdoulaye Seck ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay Kalidou Koulibaly la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag dafa sampo ab laaj nee na Kalidou Koulibaly est-ce que mën na suul Karim Benzema ba du doxal tey jii loolu la suurnal bi samp comme laaj yéen it ma leen koy laaj waaye Kalidou Koulibaly ci boppam mi ngi wax ci Karim Moustapha Benzema nee na Karim Moustapha Benzema mooy attaquant bi mën ci àdduna bi loolu nag du samay kàddu kàddu Kalidou Koulibaly la ñoom ñaar nag tey jii ñooy def rénkum jàkkaarloo bu 19 heures jotee ca Santiago Bernabéu waa Bayern de Munich tamit ñoo ngi ci journal bi rawatina ñancoo Sadio maane Thomas Tuchel nag démb da koo teg ci banc bi waaye loolee dafa mel ni jigu ko ndax dafa nërmeelu ñetti bal ci dara lañ ko dóor naam ñancoo dugg na ca deuxième mi ba waaye ba muy dugg nag fekk na mbir mi cate lool Bayern de Munich nag su bëggee qualifié faaw mu soppi xar kanamam ndax jamono ji nag Manchester City amal na jéego bu ama am solo ngir dem ca demi-finale ya ñu jugee Sénégal wotali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Haaland la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag waa ba yéendu de minute lay tàggoo nee na leen bàyyi bàyyi ndax jamono ji nag dina jafe lool ba yéendu de minute mën a dem ca demi-finale ya ndax Manchester City dañoo amal jéego bu ama am solo démb la ñu dalal ba yéendu de minute dóor ko ñetti bal ci dara waaye doomu Norvège bi kenn du moom ca match boobee doxal na dugal na bit boobee nag mooy quarante cinquième bitam ci saison bi ñu nekk te trente match képp la football kon Haaland jamono ji kenn mënu koo téye foofee ca Angleterre mooy attaquant bi fa mën loolu la journal bi xamle waa Chelsea tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom tey jii Real de Madrid la ñuy fekki ca Santiago Bernabéu match boobee nag ki ciy wax moo di Enzo mi nga xam ne gan la ca Chelsea waaye démb nag nee na bi mu leen dajalee ñoom ñëpp ñu toog daf leen xamal ne leen Premier League bi moom Chelsea doxalut fi waaye loolu moom fàtte leen ko ngeen jëmbat fulla jël Ligue des champions bi ngir mën a sauver seen saison nag nee na ñëw na ci atum 2012 ndax nee na leen 2012 Chelsea doxalul woon ci Premier League bi waaye ñoo jëloon Ligue des champions bi kon nañu fexe jëmmalaat lu mel noonu. Lampard moo xamal loolu gone yi waaye ki ko yëkkati tey jii moo di Enzo Fernandez mi nga xam ne xaalis bu bari la Chelsea def ci moom. Bellingham it mi ngi ci journal bi xam ngeen ne mën Manchester City da koo bëgg Liverpool da koo bëgg Real de Madrid da koo bëgg waaye surnal bi nee na dafa mel ni Liverpool moom génn na ci mbir mi ndax mbir mi kat Liverpool daanaka waxatu ci kon dafa mel ni ñoo ngi ci waaj a génne seen loxo Real de Madrid ak Manchester City daal ñoo gën a sóobu ci mbiru Bellingham loolu la journal bi xam xamle. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay moom nag ci match bi war a dox ci diggante Real de Madrid ak Chelsea ci la ñëw waaye surnal bi mi ngi fàttali waa Real de Madrid. nee na leen luxus yi ngeen ñi tàmmal mu jëm ci Ligue des champions bu leen ko fàtte guddik tey jii ndax Real de Madrid nag yàgg naa def yëfu jinne ci Ligue des champions tey jii nag Chelsea bu ñoom Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly la ñuy dalal match boobee nag Real de Madrid lim ci bëgg moo di doxal def match bu baax naam Real de Madrid dafa taamu woon di njëkk a génn dernier match maanaam match bu mujj mu dalal waaye tey jii nag mooy njëkk a dalal match retour bi mu fekki Chelsea. waaye li ñu bëgg moo di matal liggéey bi tey jii wuti seen fukk ak juróomeelu Ligue des champions loolu la gone Carlo Ancelotti yi bëgg. bu dee waa Chelsea moom saison bi ñuy def ca Premier League ba baaxul waaye li ñu bëgg moo di doxal ci Ligue des champions bi jël ko ngir mën a fàtte saison bu bon bi nga xam ne amal nañu ko ca Premier League ba. Xavi mi tàggat Barcelone nit mi ngi ci journal bi moom nag njiitu club ba muy tàggat di waa Barcelone yónnee nañu ko ofre bu bees tàq ngir mu yokk contraam toog ca club boobee doxal loolu la journal bi xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Karim Moustapha Benzema ak Joao Félix la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa guddik tey gi de guddik champion la ndax ñaari champion ñooy jàkkaarloo muy Real de Madrid ak Chelsea te ñaari club yii ñoo mujj jël Ligue des champions ndax bii ñu génn Real de Madrid moo ko jël waaye bële weesu Chelsea moo ko jëloon ñoom ñaar ñëpp nag li ñu bëgg moo di jëmbat fulla bu dee Real de Madrid ñoom ñàkk nañu Liga Santander bi waaye dem nañu ci final Coupe du Roi bi li ñu bëgg moo di jëmbat fulla jël ligue des champions bi jël coupe du bi bu dee waa Chelsea moom ni ñuy doxee ca Premier League ba baaxul waaye ñàkk a dox googee dañoo bëgg a wone beneen xar kanam ci ligue des champions bi kon match boobee dina tàng jër tey jii bu dee Karim Benzema moom dafa yeb lool club bu anglais yi ndax ba mu dalee takk godaas ak tey jii dugal na leen dix-neuf but moo xam muy nekk ca Lyon la ak bi muy nekk ci Real de Madrid di fa doxal muy Karim Moustapha Benzema Joao Félix tamit mi ngi ci journal bi moom nag buy jàkkaarloo ak Real de Madrid day mel ni ku réer ndax doomu Portugal bi mosul dugal ci kangu Real de Madrid waaye mosul joxit farandoowam mu dugal Real de Madrid maanaam passe décisif waaye moom it mosul am ndam ci kaw Real de Madrid tey jii nag dina jàkkaarloo waat ak waa Real de Madrid ci fàttali moom nekkoon na ca Atlético de Madrid te Atlético ak Real nag li ñu jàkkaarloo bari na lool waaye mosul am ndam moom ci kaw Real de Madrid waaye mosul dugalit mosul amal passe décisif loolu la journal bi xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa sport Robert Lewandowski la naal bi fësal ca xët wu njëkk wa dafa séq waxtaan bu yaatu lool sax ak journal bii di sport wax na nag ay bëgg-bëggam waaye li mu njëkk a wax moo di dafa bëgg Lionel Messi fekk ko foofee ca Barcelone ñu ànd doxal waaye nee na moom nag ëllëg xamut luy xew waaye li mu bëgg moo di te yaakaar ko saison bii di ñëw dina ànd ak Lionel Messi la ga ca Camp Nou sportif yi ñu doxal nee na Lionel Messi moom Barcelone moo ko moom te su dellusee ci Barcelone dina nekk mbir mu neex lool te Lionel Messi nag palaasam mi ngi fii ci Barcelone Robert Lewandowski moo yëkkati kàddu yooyu waaye nee na Liga Santander bi nag suñu ko gañee dina baax lool ci ñun joueurs yi ndax loolu su amee dina tax ñu gën a am confiance maanaam ñu gën a wóolu suñu bopp te loolu tamit dina baax lool ci club bi nee na keroog altine nag bi mu yeewoo munul woon a dox ndax ndiggam moo doon métti waaye dafa dem ñu faj ko ngir mu mën a jàkkaarloo ak waa Girona ndax moom nee na li mu bëgg moo di saa su ko ay farandoowam soxlaa mu mën a dem jàppale leen loolu moo waral nag keroog mu xëy ca altine je dem faju mën a bokk ca match boobee muy Robert Lewandowski te xam ngeen ne keroog nag doxalut waaye nee na altine joojee ba mu yeewoo munul woon a dox ndax diggu luy métti ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Lionel Messi la ga ak Robert Lewandowski la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waxtaan bi mooy wéy ba léegi ndax doomu Pologne bi li mu jàpp te bëgg ko moo di Lionel Messi dina ñëw ca Barcelone saison bii ñu dëgmal ngir jàppale leen ndax nee na Messi palaasam ca Barcelone la nekk te am na yaakaar lool saison bii di ñëw ñoom ñaar ñu bokk ca Camp Nou sportif yi di doxal kàddu yooyu nag doomu Pologne bi moo ngi ko yëkkatee ca ndaje ma nga xam ne dañu ko dajaloo woon di génne benn livre parrainé ko ko maanaam tuddee ko ndaje moomee foofu la yëkkatee kàddu yooyu muy Robert Lewandowski waa Barcelone tamit ñu ngi baral jéego yi ngir Xavi mi leen di tàggat yokk kontraam toog ca club boobee doxal waaye journal bi tamit ñëw na ci mbiru Negreira jamono ji nag waa Barcelone jël nañu ndogal rawatina ne mooy président wu Barcelone nee na bu ñu yeggee ci le 17 avril di yemoo ak altine incha allah dina wax ci mbiru Negreira kon képp koo xamante ni mbir moomeekat lëntoon na ci sa xel maanaam leerul woon ci sa xel na nga xaar altine le 17 avril président bi nee na dina ci indi ay leeral kon képp kuy supporteru Barcelone wala amateuru foot maanaam ku bëgg football rek na nga ko xaar waaye mbir moomee King Ouse Ngary TV dina leen ko toppal incha allah lu ca ruusandi rek ñu indil leen ko ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Lukaku la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye journal bi nag Inzaghi mi tàggat Inter lay wax ak journal bi tey inzaghisme la ko tuddee ndax doomu itali bi li mu waxoon la def bett na Italie gépp dem ca Portugal fekki fa Benfica dur ko ñaari bal ci dara te loolu nag yombul woon waaye def na ko démb muy Inzaghi journal bi nee na jamono ji nag deferaat na toogaayam ca club boobee di Inter waaye tey jii nag ñoo ngi xaar ñaari artiste muy Alvarez Khalilia nekk doomu Géorgie di football ca Napoli ak Rafael Leao nekk doomu Portugal di football ca AC Milan ñoom ñaar tey ñooy jàkkaarloo moo tax journal bi nee na dina nekk guddi gu neex ndax ñaari gone yi la ñuy def mën nañu ko lool waaye doomu Angleterre bii di Smalling it mi ngi ci journal bi moom nag défenseur la ma ngay football ca AS gone gi contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee da doon waaj a jeex ñu dooroon waxtaan waaye léegi nag juboo nañu ci lépp dina yokk contrat ba atum deux mille vingt cinq bu dara soppeekuwul ci diggante bi fan yii di ñëw dina xaatim contrat bi ñu siiwal ko loolu la surnal bi xam xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Inter bii nag la itali gépp di gént ndax démb goney Inzaghi yi dañoo wane xar kanam bu rafet doxal ca Portugal am ndam lu ama am solo ci kaw Benfica bit yi tax Inter am ndam ki njëkk a dugal moo di Nicolo Barella Lukaku feelu ko ñu am ndam lu ama am solo waaye Inzaghi mi tàggat Inter mi ngi wax nee na match bi amoon démb nag